tur bi. maa ngi tudd Babacar Ndaw quoi. waaw dëkk Cambérène. yàlla dogal ñu nekk fii di fi liggéey quoi. nekk fi ay at yu bari. ñun ak lakkatu jën yi. wax dëgg yàlla di wax ne nag àdduna moom. Euh, yàllaa ko moom quoi. te ñun ay sabab lañu. te mënoon nañ fi nekk di agressé wala ñuy dugg si gaal yi. wala ñuy def naka su dul noonu mais liggéey lañ gëm. parce que ci loolu la ñu yar quoi. xam nga fii moom wax dëgg yàlla yàgg nañ fi te fii lii si lañu yor suñuy waajur si lañu yor suñuy njaboot. yàlla xam na ne bu ñu xëyul du ñu taal cin kon donc ñun lii si lañ yaakaar jigéen ñi fi nekk tamit wax dëgg yàlla ci lii lañ yaakaar fi ñu fi lu dul wàcc liggéey ci dem suñu kër yi. waaw waaw problème bi nag mooy xëy rek jox ñu sommation nañu leen fii jógee ci loo xamante ni tey wax dëgg yàlla amul ay argument yu leer comprendre nga man nangu naa leen jugeel nii kaayal nii ñu defaral leen ngeen nekk si jàmm mais tey mënoo fekk ay sabab di liggéey ay jeunes tey nga jugee fële ak sa gàngoor ñëw rek ne da ngeen fii jugee te loolu nekkul loo xamante ni tey lu ñu rafetlu la fi fi tay tey buñ ñu ko xagne xañ nañu lépp parce que ñun li ci lañu yaakar wa ñun li ci lañu yaakar wa tay mo nañ nekk ci agressé wala ñu nekk sa dul non mais liggéey lañu gëm nañ ñu bàyyi ñu liggéey. mais mais subvention depuis kañ lañ leen ko jox. subvention yi démb lañ ñuko jox. dem la kañ lañ bëgg ngeen jóge fi 24 heures la 48 heures suma ma leen di la té lol di yoon quoi may gor da nga wara xamni ñaari gor ñoo la su jur da nga am yaam papa comprendre nga yow sa affaire baax na ñun suñu affaire baxul comprendre nga tey boo xoolee parking ba baa nii di dox nice te lépp si yéen la jëm comprendre nga ñun bañuñu sax ku ñu ne juuti wala ñu defaral ñu ni ñu certainement ñu fay ñun bañuñu loolu mais tey boo boo ñu fi jëlee fan ñu teg bu leen ñu xañ suñu live quoi parce que ñun demuñu def naka suñu noonu ñu lii lañ gëm ci lii la ñuy dox ci lii la ñuy wax comprendre nga nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun loolu lañ bëgg wala ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ñu xool nu mu rafetee ñu defee ko noonu. mais est-ce que defoon ngeen démarche depuis ba problème bi amee pour ngeen am rencontre ak moom toog waxtaan seet yan conclusion ngeen di tenir. bien sûr mais dem fa boo fa demee duñ duñ la may sax nga gis ko quoi démb rek dem nañ këram yàlla xam na ko pour maanaam jéem waxtaan moom mais fekk ñu ko fa comprendre nga nan ñu bàyyi ñu liggéey Malibu lii ba Europe amul place booy dem te amul lii comprendre nga tey euh, Malika ñu nii mi ngi dox macha allah BCEAO Pointe les Almadies foo dem Mazikiland foo dem lii moo fa lii dafa bokk luy jëmal dafa bokk luy jëmal quoi comprendre nga lii mënta ñàkk fii lii mënu bañ barke alxuraan yëkkati a def non ñoom si li ñu wax dañ ni fii dañ ko joxe man moom wax du ko raay raal dañ ni fii dañ ko joxe bon dinañ ñaan seen doole ba xam dinañu mën a may fii mënuñu ko jox keneen ku ñu gën fii ñun comprendre nga parce ñun lii parce que ñun parce que ñun lii barke alxuraan si lañ lépp lu ñu ut lii moo ko koy may comprendre nga beneen mooy moom si boppam dafa war a comprendre ni li mu def li mu li mu mel ñun ñoo ko def moom na na bàyyi xel loolu na xam ne au temps métti na ci moom kon yàlla bu dogalee ñu fal ko dafa xam ne ñun li ñoo ko def comprendre na ragal yàlla nag na ragal yàlla te xam ni lii suñu ko xañee xañ na ñu lépp barke alxuraan yow may góor lii boo ñu ko xañee xañ nga ñu lépp na xam ne nag ah ñaari góor ñoo la si ko jur na nga xalaat bu baax li ngay def waaw ba ñu ñu waxtaan ba ñu ñu fay ba ñu dara ñun woo nañ la ci lépp lu baax woow ñu fi woow ñu fi violent ñu fi dara lu ñaaw dañ la woo si njekk ak teraanga nga xam ne yow la fi yàlla teg waaye ci biir loolu dañ la jox cër gu mat sëkk déggoo fi saaga déggoo fi benn loo xamante ni luy déranger la lu dul njekk ak lu rafet ñun loolu lañ bëgg ñëwal ñu toog ñu waxtaan su fekkee mën ngeen ñu bàyyi ñu liggéey moo ñu gënal waaw loolu laa amoon lu may wax quoi

Euh, jaaykatu ndox yi ak jaaykatu madd yi nga xam ne léegi soo ñëwatee affaire yi dootul tas soo taxawee di nga xam ne fii jaaykatu ndox yi ñoo fi nekk fii jaaykatu jën yi fii lakkatu jën yi mais boobu ba léegi defuñu benn différence mais xam nga yow tamit soo ko defee si bopp nit ki ba nit ki am yaakaar nga xëy au beau jour rek ne noonu nit ki dafa jógee léegi loolu ci ci ëpp huit mois léegi loolu ci fan nga koy teg mais nan ñu bàyyi non amul suite wax dëgg yàlla amul suite quoi moom moom wax dëgg yàlla si mais li ñu gën a soxal daal nañu bàyyi ñu liggéey ñun daal loolu lañ gëm. fii en même temps parallèlement. waaw parking dafa nekkee à côté. merci merci. parking merci yéen yéen yëkkati mais yëkkati yëkkati nañ parking wala yëkkati parking. exactement loolu rek loolu rek beneen loolu rek beneen beneen beneen dimension la quoi parce que parking péage bi ñoom ñun suñuy client ñun ñoo leen di ñoo ñun ñoo leen di jox quoi parce que ñun suñu client bu ñëwee même bu ñuy jënd jën dañuy fay. wallaahi lazim ñiy jënd lakk jën même bu ñëwee ñoom dañuy fay comme daal léegi léegi loolu yëpp si ñoom la jëmaat léegi li gën a rafet mooy nan ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu xool ku ci place bu dee da ngay dagg juri cent franc chaque fin de mois nga fay 3000 mais bëgg nañ quoi mais moo gën nga bëgg xëy rek ne fi nit fi jógee te ñun foo xamante ni ci day luy déranger la fii géej la mënu koo bañ comprendre nga fii géej la quoi te lu mënta ñàkk faa moom quoi waaw loolu la ko maa ngi jégalu ñëpp nag gars yi gars yi liggéey la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg allez may leen mare may leen mare may leen mare may leen présidente asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp man maa ngi tudd Mariam Sidibé dëkk commune Golf maa ngi nuyu ñëpp li war a jotaay bi nag du dara lu dul ñun Malibu sunu Malibu bii ñoruñu lool ñu bëgg waxtaan ak maire bi rek ne ñun xëppuñu ko tiitaluñ ko jaay ñu ko doole danoo ñëw pour waxtaan ak moom rek ay jigéen lañ ni moom ñu kontaan noonu loolu nag biñ ko gisee muy ndaw tolloog ñun ñu yaakaaroon lu ñu mësoon naqari ay ñetti ñeenti at juróomi at juróom benn at ci ginnaaw lu mel ni que li mu bëgg def nii tey defoon nañ ñu ko te booba kiñ ko defoon biñ gisee maye koor danoo kontaan loolu defee ne si moom ci moom lay jeexee dootul amati tey nag su bëgg ñëwaat nag andilaatul ñu sommation def li fi fi jógee defoon te ñu yaakaar nag moom buñ ko gisee mu tolloog ñun dinañu dimbali ci lu baree bari te loolu amul dinañ ko woo dinañ leen woo yéen ñii ñu ñaan ko li ñu koy ñaan nag danu koy ñaan rek ne ko nanu bàyyi ñun mali bu bii sunu mali bu la Malibu bii ñun ñoo ko jëmmal Malibu bii ñun ñoo koy taaral Malibu gii ñun ñoo koy suqali donte ñoom ñoo ñoo ñu ëpp doole ci commune bi moo tax ñu teg leen suñu benn loxo te bu mu fàtte nag ne moo ne woon Adji saar yaa ngi lor jigéen ñi te moom jigéen la te duñu lor mukk xam naa loolu. beneen bi si topp mooy ñun ñii ay jigéen lañu ay jigéen lañu comme moom xëppuñu ko nag tiitaluñu ko ñu ko doole audience bi lañ soxla rapidement ndax xam naa nit ku mën a waxtaan ak nit la nit koo xamante ne ku toog ak moom dégg lu baax dégg lu baax. kon nag ñun ëpp ñu ko xëbaluñ ko neewuñu ko lenn lu ko naqari li ñu bëgg rek mooy sunu mbaar yii mooy sunu bureau tàngaay bi fi ne mooy sunu kilim ndax santiruñu ko kon nag nanu bàyyi sunu mbaari ak sunu tàngaay bii safara bi ñuy tiim mooy sunuy kilim moom mooy sunu lépp nagi àddina mbaar yi ñu am bu ñaawee itam yor na téeméeri nit sunu mbaar yii mooy sunu àddina mooy sunu njaboot mooy sunuy kër mooy sunu courant mooy sunuy ndox jigéen nag fi sonaloon ay jigéen kon nag bu jigéen taxaw mukk sonalaat jigéen waxam jooju dañ koo nawoon ba topp ko ci kon nag bu mu ñu sonal ci lenn nañu woo audience ñu waxtaan ak moom loolu la ñu bëgg te Malibu la ñu bëgg bëgguñu Pikine bëgguñu fenn bëgguñu Yoof bëgguñu fenn Malibu Guédiawaye lañ bëgg bëgguñu feneen fudul Malibu jërë déglu leen déglu leen parce man gis naa ko mu ñëw ci am na mhm. lu mhm. que jàpp leen ne ci ci d'accord nañu projet boobu parce que ñun géejawaay lu suqali géejawaay rek ñun gënal nañu neex nañu sedd na suñu xol lool waaye li suqali géejawaay nañ ko taaj ak doomi géejawaay yi xamante ne ñooy ne ci bërëb yi di daan seen doole ñu waxtaanee ko ak ñoom ndax at sama maam danaa wax wat gaal ak yogoo nit gor soo ko woowee ko rek yaa ko yaa yaa ko yaa ko yaa ko yaa ko teg waaye soo ko woowee toroxal ko rek ko yaa ko kon nak nañu woo ñu waxtaan ndax projet am boobu rafetul lañ ko lool lu ñu rafetul la wan nañu ko waaye dafa yàgg sommation bi ñu andi la trottoir la ñu mënul ñu sommation 48 heures 24 heures lañ ak civilisation ak respecté ko lool ñëwu fi yónneew fi ndaraan yónneew fi kenn dafa yeew gis ñu dem ci lu mat fukki mbaar ak juróom ay jigen tok ci guddi ba 4 heures du matin 5 heures du matin diko ko dajjal suñu bop tok diko daj ànd ak suñu njabot ndax lan respecté ko lol nak ak bëgg lu ko neex kon nañu wo audience ñu waxtaan ak bañu ñu lolou territoire nak nekkuñu ci territoire ñu ci geej gi lañ nekk nekkuñu ci territoire ci territoire bi ñu ci geej gi kon nañu wo ñu waxtaan projet bi dañ koo rafetlu lol parce que ku sañoon géejawaay taar ndox ñun géejawaay lañ am amuñu fenen ku dul géejawaay géejawaay sunu Europe demuñu France dugguñu ci gal demuñu fenn ñun géejawaay gi lañ tok géejawaay lañu am amuñu fenen. kon nak nañu wo ñu bokk ak moom toog waxtaan li ma waxoon rek laay waxaat menacé wu ñu la xëpp ñu la jaay ñu la doole jaay ñu la dara dañ lay woo ci njekk nga woo ñu ñu toog ak yow waxtaan ak yow ndax li nga bëgg lañ bëgg mbaar yi rek la ñu bëgg bañ ko ko laal mais bañu ñu leneen man Marème Sidibé laa tudd Marème Sidibé bañu présidente femme présidente femme yi nekk Malibu bañu ñu dara ku laa sunuy mbaar dong lañ bañ kon nag balaa ñuy laal mbaar nañ ñu woo ñu waxtaan ñu xam sunu mbaar yi ñu bañ ko ko laal ci lan lañ ko a bañu ñu lool nañ ñu waxtaan ak ñun waaw. tur bi Mouhamadou Matar. waaw Mouhamadou Matar ñu ngi la fekk fii ngay consommé nii ci Malibu bi. waaw li fi am. waaw gars war a yëkkati. dégg naa coow li mais loolu non loolu moom dama koy ñaawlu parce que ñun des années fi la ñuy coobee fi la ñuy doxantoo fi la ñuy defee lépp kon boog bu ñu bëggee fekk ñi di daan seen doole ñu bëgg ñu bëgg leen fi jëlee man loolu man dama koy ñaawlu quoi xam nga te maa ngi koy ñaan état bi xam nga mu jàppale ñii quoi parce que ñii waruñu fi jugee parce que fii ñoom ñoo ko jëmal fee lañ njëkkoon nekk ñu jëlee leen fi xam nga indi leen fii kon man di yoon xam nga ñoom ñu leen fi jëlee man loolu man moom dama koy ñaawlu grand franchement parler parce que ñun sama copain ak sama gars yëpp fa ñuy ñëw sax ngoon non bu njëkk maa ngi doon dem ba ay Pointe des Almadies mais bi ma xamee fii ba léegi dematuñu fenn ñun fii rek la ñuy ñëw te ñi fii nekk ñëpp dañuy daan seen doole xam nga ay jigéen ak ay góor jigéen ñi fii ñu si bëri seen borom kër dañu génn àdduna dañoo yor njaboot dañuy ñafe pour di dund ak seen pour di dundal seen njaboot kon boog dañ leen fi war a bàyyi quoi waaw loolu laa amoon lu may wax maa ngi koy ñaawlu trop waaw di woo bi nag. non amul non amul amul man gisuma fi dara man chaque guddi heure bu ne dama fi ñëw mais gisuma fi loo xam ne war na mën a danger bañ bëgg leen fi jëlee doo fi gis sax agresseur fii franchement parler voilà man daal loolu laa amoon lu may wax xam nga di ñaan état bi xam nga mu bàyyi leen fi quoi ñii dañuy daan seen doole. voilà jaajëf waay. man Baye Cheikh Diop laa tudd. waaw dégg nga a yëkkati ñi nekk mhm. dégg naa ko bu baax. lan mooy en tant man nag en tant que client parce que man des fois damay ñëw fii si géej bi damay wàcc su ma wàccee damay ñëw fii entraîner fii nii ab des fois ma petit camp te su des fois damay xiif après man fii laay jaar ma lekk léegi mais man nanguwuma ñii dañuy ñëw pour liggéey dëgg la am na foo xam ne mën nañ leen fee jëlee feneen mais fii nii ñi boo leen fi jëlee lan nga fiy def lan nga fiy teg ñi defuñ dara du dul daan seen doole ñi dañuy liggéey amul leneen lu ñuy def fii la toog ñun ñuy des fois ñun dañuy liggéey wàcc des fois nga xiif agogoo sa kër nga ne xam ma jaar leneen looy def man jàpp naa ne lii ñuy bu leen fi jëlee gisuñu leneen lu ñu fi mën a def lu am solo loo xam ni tey jii nii xalaatu ma ko ñu koy def ñun dëgg la ñun ñoo votel Jomaay ñoo votel Sonko mais bu ma sañoon ñu bàyyi fi ñii dañuy liggéey waaw ñun jigéenu Malibu liggéey rek lañ xam ñàkk tedd rek la ñuy dundee dañuy teel a xëy guddee wàcc soxla ñu daray góor waaw na nañ leen maire bi ñu bàyyi ñu liggéey ñun liggéey la ñu xam nañ ñu baay ñu liggéey dañoo yor suñu njaboot gi yor suñuy waajur ñëpp nañu dimbali bàyyi ñu liggéey te yàlla tax daf ñu fi daray ñàkk fayda heure bu ñu bu ñu ñëwee dañuy bale ba mu set bu ñu wàccee bale ba mu set ah fulaak fayda yu tax a jóg neen may ko ñu bàyyi ñu liggéey te yàlla tax nañu bàyyi ñu liggéey te yàlla tax dañoo yor ay njaboot waaye suñu njaboot gaa ngi ni suñu waajur ñëpp ci ñu lañu yaakaar ah fii ku fi bëgg ñëw da ngay ànd ak ñun ndax ñun ba ñuy def Malibu kenn soxlawul Malibu dañ fi doon rey ay nit di fi agressé ñun ñoo ko liggéey ba doomu aadama yi di fi ñëw kon maire bi dañ koy ñaan bu bëggee na ñëw wax lu mu bëgg ñu def koog moom mais jóg leen moom du solution loolu rek la ñaan. da am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu. seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.